dal leen jam jàmm Fatoumata Bari ñu gën ko xam si turu rangu ak ay ñoñam jamono ji ñu ngi ci guddi gu bët seetagul ginnaaw bi ñu defee ay fan yu bëri ci ab détention provisoire ca division de la lutte contre la cybercriminalité ca Dakar ki fi nekkoon animatrice ci télévision Sen TV ak ay xaritam ñi nga xamante ni tegandoo woon nañ leen loxo te jamono ji sax ñu xam seen tur bokk na ca ku ñuy woowee Fatou ki Kiné Ndiaye Mame Fatou Diop ak Alima Sy ñoom ñëpp jot nañ leen a defeere démb ca parquet ba ci kanamu procureur de la république bu tribunal de grande instance bu ndakaaru rangu ak ay xaritam nag ab retour de parquet la ñu am ginnaaw bi nga xamante ni teg nañ leen loxo le 27 mai gi ñu génn ca hôtel Ngor Timis ginnaaw bu nga ni rek organiser nañ ab yendu parti ci jamono joo xamante ni bépp rassemblement dañ koy tere ci réew mi ngir xeex jàngoro coronavirus gi ay fan rek avant ñu koy arrêté ñi di waa police dañoo découvrir benn site pornographique bu xamante ni kii site nag mu ngi ko tuddee OnlyFans doon ci fayeeku nag lu toll ci quinze jàpp cinquante mille francs ngir nga daal di dugg ca boobule site seetaan ay vidéo yu bon yu nga xamante ni ñoo ngi ko fay amal maanaam mbir mi lee ak cagatu déguisé la woon na enquêteurs yi nag li leen ko xamal moo di dañoo jop ab euh, information anonyme bu leen wax ni ki di rangu dafa ubbi ab site pornographique waaye nag ñu bëri dañoo jàpp ni boobule information ko ko jox ñiri enquêteurs yi moo di Eben Diop nekkoon fii ab xarit wala sax ndayu rangu te jamono ji ñoom ñaar ñu nekk ay ennemis jurés ginnaaw dénonciation bi nag ci la way takk der yi daal di ubbi ab l'enquête ca noonee nag la ñu teg rangu ak ay ñoñam ci benn yendu parti boo xamante ni organisé woon nañ ko ca benn hôtel bu ñuy woowee hôtel Ngor Timis rangu nag ak i ñoñam ngir wedd tuuma yiñ leen di toppee kii di maître Oumar seen moom la ñu jël ngir mu layal leen jàpp ñu jàpp Fatoumata Bari alias rangu nag daanaka bettuwul ñu bëri ndax kat xale bëggoon a réussir te nanguwul liggéey ba tax nag mu doon mel ni luy jaay boppam ci réseaux sociaux yi loole nag la koy firndeel moo di vidéo yi bon yi nga xamante ni doon na filmer boppam di ci def daanaka yaramu neen di ko dugal ci réseaux sociaux yi waaye rax ci dolli ab soirée privée boo xamante ni organisé woon na ko te ca affiche ba daanaka xale yi jigéen yi si nekkoon ñoom ñëpp taatu neen la ñu def ngir jaay boobule soirée